aux enquêtes économiques chef du service régional du commerce de Thiès. waaw tey jii li ñu indi fii tey mooy euh, lakk ay produits yoo xam ne dañoo périmé euh, tey jii mën nga dikk ci mbir mi. Euh, dañ fee ñëw en collaboration avec Thialfon euh, sur instruction du ministre en charge du commerce di lakk à peu près tonnes de produits périmés ak ay produits de contrefaçon am na aussi ay garab tey daal séance la boo xam ne. dañ koy def euh, chaque fois ci chaque année dañ koy def tey ci la ñuy jublu nii en collaboration avec service de répression yëpp nag muy gis ngeen ko nii sapeur pompier ak euh, gendarmerie douane eaux et forêt police ak service d'hygiène donc euh, ñoom ñëpp ci comité bi la ñu bokk donc teew nañ fi produit yëpp ci biir marché bi ngeen leen jëlee wala seen euh, équipe yi ñoom ñoo war a dugg ci dëkk bi am ay euh, lu xamante ne moom lañ doon pour campagne pour nga xamante ne ay. waaw produit yi yi ci biir marché bi lañ ko jëlee lépp donc sunu brigade yi bu ñu génnee di liggéey chaque jour bu ñu génnee bu ñuy ñëw dañuy indaale ay produits donc muy ci officine de pharmacie muy médicament de la rue te dégg ngeen médicament de la rue li ñu ci wax ne day reye donc euh, yi ci des yëpp ci marché bi yeeg yooyu muy région bi yëpp la daal fii lañ ko jëlee ci biir marché yi circuit de distribution yi liñ ko mën a waxee en France. lu jëm nag ci wàllu gis nañ ñu ngi ci weeru koor bi te gis nañ ay produit yu bëri yoo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo bokk na ci yi nga xamante ne aussi jël ngeen leen nga xamante ne ay produits yu périmés lañ. waaw xam nga bu koor gi jubsee dafa am produit yooyu yu ñuy wax ay produits njoo njoo njoogaan. Euh, nit ñi magasin yi dañ koy yor seen biir euh, kii magasin commerçant yi dañ koy yor seen biir magasin su demee ba nga xam ne période bi dee na ñu date bi des benn weer ñaari weer dañ koy jox jigéen ñi ñu teg ko ci booru tali yooyu yooyu lañuy wax euh, ràngu ak njoogaan yi donc ci produit yooyu dañoo xam ne date bi soreetul ñu jox leen ko pour ñu ràngu ko donc yooyu bokk na ci produit yi ñuy jàpp te ci produit yi. nit ñi war nañ cee bàyyi xel ne meew mi ak euh, margarine bi loolu dafa nekk ak bouillon yi nekk na produit yoo xam ne baaxul su demee ba date bi jeex vraiment nit ñi war nañu am xel nekk consommateur averti di xool date de péremption yi parce que Sénégal législation bi li mu wax euh, dafa leer dafa ne produit bu ñu defaree fii ci Sénégal wala produit buy dugg ci Sénégal dana am euh, date de fabrication ak date de péremption donc loolu damay wax consommateur yi rek population bi ñu ciy veiller aussi parce que ñoom ñooy premier contrôleur mooy population bi war nañu mun a xam boîte bi ni ko tubaab di waxee boîte fuitée mooy boîte boo xam ne da ngay gis muy roogalaat donc kooku nga war a xam ne lu tax muy roogalaat boîte boobu am na déjà air dugg na ci biir baaxatul su fekkee boîte bi aussi dafa neew yi li ñuy wax euh, ci tubaab boîte bombée kooku aussi war nga xam ne produit bi baaxatul donc euh, date bi aussi boo ko xoolee su fekkee ne périmé na nga xam ne produit bi war waratoo ko lekk. waaw parce que fi ñu retiré produit yëpp nga gis ñu lakk nii fi ñu ko retiré yëpp dañ leen di teg daan ñaar ñaari daan nag am na am na transaction pécuniaire nga xam ne dañuy fay xaalis ñu versé ko am ñoo xam ne ne bu fekkee fayuñu da nga leen di teg ci yoon. waaw huit tonnes yi nag boo ko xaymaa pratiquement dana la mun a yóbbu ay vingt millions ah vingt millions ci xaalis.